à cette actualité euh, cruciale euh, relative à la déclaration de politique générale du Premier ministre euh, boucle na euh, boucle il va bientôt boucler trois mois euh, la coutume c'était que warul dépasser trois mois mais là avec une révision de la Constitution et, et, et, et une absence de révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale euh, on se trouve dans une euh, dans une impasse le premier ministre député yi nee nañ ñu ngi koy xaar pour sa déclaration de politique générale euh, maintenant avec la nouvelle loi il n'y est plus il y a plus de il y délai le premier ministre nee na nañu conformer le règlement intérieur euh, bi nga xam ne euh, subirul encore une nouvelle révision avec le retour du poste de de de, de premier ministre comment est-ce qu'on en est arrivé à cet imbroglio bon xam nga déclaration de politique générale d'abord en dehors de la première république 62 où c'était une condition pour pour être nommé président du conseil il fallait aller faire une déclaration de politique ñu investir la ñu ngay su mën a nekk président du conseil mais en dehors de ça depuis 1970 tous les premiers ministres du Sénégal dañu def seen déclaration de politique générale tout personne n'a dérogé à la personne Sidiki Kaba n'a parce que voilà. Il n'a pas eu le temps. C'était 15-20 jours, voilà. Ouais. Mais sinon, euh, tous. Abdou Diouf, mars, il est nommé Premier ministre, 18 mars, il fait sa déclaration de Parce que la déclaration de politique générale, c'est, comment dire, à l'entrée en fonction qu'on suñu la suñu la la falee rek en France d'ailleurs le premier ministre il prend une semaine quinze jours soo ko nommé une semaine quinze jours il fait sa déclaration de politique générale deuxièmement la déclaration de politique générale n'était pas prévue dans la constitution au Sénégal de à 2001 texte yi benn benn texte waxu ko. benn texte légiféré wul là-dessus benn texte légiféré wul am moo bi amul ci constitution bi Abdou Diouf déclaration de politique générale amul mu laaj Senghor mu ko demal mu dem. bi mu ñëwee Habib Thiam def na deux fois déclaration de politique générale c'est pas prévu Lamine Loum def na déclaration de politique générale pas prévu Moustapha Niass donc c'est pas prévu mais dañ koy def c'est pa prévu mais dañ koy def dañ koy def dans le délais c'est vrai que le délai varie parfois 2001 lañ koy soog a dugal ci constitution bi foofu nag ça devient une obligation. constitutionnelle constitutionnelle. malheureusement une obligation constitutionnelle non sanctionnée soo ko deful lu ñu mun def mooy réprobation euh, euh, protestation des parlementaires. mais boo ko deful violer nga la constitution. en tout cas je ne peux pas dire violer nga la constitution parce que euh, soo ko deful déjà premièrement amul woon délai bi ñu ko defee 2000 dañ ne rek après sa nomination le premier ministre fait sa déclaration de politique générale point. bi ñu nommé Mame Madior mu toog 6 mois soo ko def. député yi dugal ci règlement intérieur bi article 97 ne léegi su ñu la nommé premier ministre trois mois nga am 2002 2002 laa bind benn article envoyé naa la ko man leen cette disposition viole la constitution. pourquoi. règlement intérieur amul droit di prévoir un délai au premier ministre pour prêter pour pour pour def ko. constitution bi moo ne après sa sa sa le premier ministre fait sa déclaration de politique mais le règlement intérieur son rôle pas. d'intervenir dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Hmm. Dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est la Constitution. Le règlement intérieur a vocation à s'occuper du fonctionnement interne de l'Assemblée nationale, interne. Mais le règlement intérieur ne peut pas imposer au Premier ministre une obligation. Li ko defee, j'ai dit, c'est une disposition qui viole la Constitution. Sauf, sauf su fekkoon ne constitution moo ne je renvoie pour fixer le délai. te constitution bi waxul loolu. léegi lu constitution waxul yow nga def règlement intérieur pour fonctionnement interne assemblée bi nga waxaale ci lële waroo ko wax parce que suñ ko bàyyee mooy règlement intérieur mën nañu waxaat beneen aspect boo xam ne ci rapport entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif bi la. te warul interférer ci deux ci diggante boobu diggante waru ci interférer. mais donc Ismaïla. donc disposition boobu c'est une disposition à mon avis qui viole la constitution mais mais pour moi c'est pas une question de droit. non mais avant loolu. Mm-hmm. donc ñii di naan euh, disposition bi dañ ko tëbal ci réglement intérieur bi euh, et que par conséquent euh, les députés ont tort donc ñooñu ils sont ils sont disqualifiés. oui parce que dañ ko tëbal dañ ko bëgg a dugalaat waruñu ko dugalaat sax dañ ko tëbal pourquoi ñu tëbaloon ko parce que bu ñu supprimé poste premier ministre dañ jël règlement intérieur bi lépp lu laal premier ministre ñu ñu dindi ko bi ñu indiwaatee premier ministre bi. ñu jëlaat disposition règlement intérieur yi nga xam ne dafa régiroon premier ministre bi mais acté wuñu ko voté wuñu ko donc il y a pas de faux règlement intérieur non il y a un règlement intérieur qui ne contient pas qui ne contient pas les dispositions relatives aujourd'hui au premier ministre parce que acté wuñu ko dugalaguñu ko ci maa ngi dégg maa ngi gis ñu ne am na benn député bu ne day def pour ñu dugalaat ko ma ne loolu sax waruñu ko dugalaat ci ci règlement intérieur parce la constitution